gaa yi démb fu ci ne ñi ngi ma ciy wooyee ci réew mi naa ma njaasale king xanaa takk maanaam ay jiin ak yu rafet yooyu kaar masàllaa yooyu rek lay jaay man leen noonu dana dikkaat ak mbàcc moo xam ne daanaka mbàccum gerte la moo xam ne ratatate yi foo toll di ko dégg boole ñetti ña nga xam ne ay moyen officialis na nga xam ne moom moomee moyen yi muy jaay daanaka am na solo mooy yu neex dégg jàmm mooy Barcelone catalan yi nga xam ne bëgg na ni mooy nanu dem Médina wala ñu dem fële nga xam ne moo nekk Blaise Diagne am nañ fa place yëmbal ca ba foofee tamit ah, daanaka am nañ fa place boo xam ne ah, bu mucc ayib la ñetti place yee yëpp ah, benn la ci seenug barke ak jàppale gi nga xam ne moom ngeen jàppale la Laking ci yére yu yi nga xam ne moom lay jaay loolu tax na nag mu mën a dàbbar ñu lu baax car macha loole tamit seenu jàppale la kon gars yi commande yi def leen ko mooy bu ngeen bëgg boo xam ne xeetu équipe bu mën di doon am na ci suñu place bu ngeen wootee ci suñu numéro daanaka 77 174 57 15 bu ko defee ñu libre leen lépp jàmm lépp tawféex